ay ay Expulsé de chez lui pour avoir contracté plusieurs arriérés de loyer, Baygor a bénéficié du soutien d'une bonne volonté. góor gu baax googule jël benn nekk ci ay kërëm dal di ko jox Baygor ndax mën fa nek ak soxnam. Ay nek du bay góor kese moo ci kër ga ndaxte am na yenen ñetti locataires yu fa nek chaque jour que Dieu fait on assiste à des querelles entre le surveillant et les locataires kon nak mbokk yi toppaleen sen série Baye Góor ba xam nak fan la wanent di mujj ak yi awa kale man yooyu kii ma ko de awa kale awa kale awa kale rek awa seen waaye yow awa awa jeex nga yow maa sañ dugal ci taay fii <laughs> kon de roqee ñaag ma dem si àndandoo dama jigéen bu sew man waxuma ci dara dara dara laa ci waxu ah soo kañ la loolu jigéen bu sew baaxul lu jigéen da fees saabu boo sewee dañ lay yërëm dañuy foog dunduloo quoi. <laughs> dëgg nag day mel ni lekk day yàq deru góor. day yàq deru góor loolu moom dëgg la. <laughs> moo tax après ay ñaareel yu sew ak yooyu yëpp. baaxul. baaxul de. da lay um. da lay um day yëngal sa xol. day yëngal sa xol parce que yax yi yow boo amee yax ba pare boroomi yax di la jamono day metti di ay yax voilà karak ñaari yax yu daje day metti da ngay dégg ay yax yu daje. day metti day metti surtout yax nakk bi fii. ay eh yaxu nakk nii. subhanallah baaxul. day jamaate. doo eh, ah, nodd bi ñu ah. ah, kii mbaay hmm. dafa demoon xam nga jobbe jobbe ah jobbe sama xarit waaw te saa yu ma ko rombee mu ne pale lii pale laa def nii man bu ma xam ne defee nii mooy nice nga loolu lay bëgg a wax loolu lay wax de ndeysaan mbaay daal moom bu zanti la mbaay moo dem foofu di ko coppal mbaay nangam jombe wax ni ko bali li la expliqué ba pare mu ne ko pala nobu ko pala mbay ma kii yooyu ne ko sa karit bu njool bi te tew sangara te mu ne ko kooku laa nopp dégguma jànk loo mu war a kaawati jànk xam nga ni su ma la woowee sama kër gi am na lu xew waaye li xew tuutiwul yow doo woote ci neen di ndax xam naa li ma ko te il faut nga ñëw moo tax ma indi la ba nga xam ne yoro nekkatu ci kër gi mënumaa gëm loolu <laughs> waaw loolu noo ko mënee yow it maa ko dàq dàq bu civilisé. ah déet waroon def loolu. dàq bu tubaabe laa ko dàq yoro toggal fobeereel yakkal xam naa ne mënu ko doo ko def xam nga loolu dafa metti jigéen ju ko engagé sax bu yàggee nga xàdde. mën a góor waa yow lii. non génn yoro ci kër gi yoo loolu ko fekkewul fekkewoo dara. yow da ngaa génne yoro kër gi ah. wallaay la ko mu ne ko kooku mu ne def man ki quoi. <laughs> Eh, dem ki quoi dem ki lolou loolu expliqué. ko man mu ne ko si ma wax mbay est-ce que mu ne bu sañon tay tay tay mu sey si. Yoro man dama la bëgg laaj. Hmm. Yoro man sama askan dañ la wax ni man dama ñak fayda wala ane bi ma judd man ko perte ko manke ko matadi ko waye di ko xaye di daf judd Yoro ba lo jog rek jël kooku yàlla moo ko teg nattu yàlla moo téye gémmiñam mais yeneen yi mi ngi dox yow yàlla bu bëggee eh waay Samba yow na yeneen yi ñu ngi dox dafa musoo dof ok yeneen yi mi ngi dox akamala dégg saw la dégg naa la de oh, yoral rek leen sampee yàlla moo ko teg nattu duñu ko dimbali eh, ba ci eh, wax jooju na tege ci suuf de jobbe duggul sama kër yow segam ñiy dégg di di gis nga ma nga ma jaxaseel man sama la koo xam ne yàlla dafa téye gémmiñam Jobe daa xaj ci man wax jooju teg ko ci suuf. yërmande. sama yoon nekku ci ëpp ma yërmande bu ma jaxaseeg yàlla. lii laa ko def muy togg ko yekk ko fobeere te li si gën a metti mooy doy togg ba taaj ma ne ko baaxul mu fobeere ba muy briller ma ne ko setul. mu ne dama ne ko ba ko fekke fofé sa ma ko la bi sanni fa nek génn sama kan ma doy mune no bul ma def loolu Anita bàyyi ma ma fa beere nangam eh, eh. sangam léegi may ma sama xar ba ma jaay ko Sadio man woon ko kun gétt gi ma dem. indi la ay joy bu équipe bi wutee ma dem comme ci ay xar la dépendre te ñoy équipe nationale ñoo ñu bari wu ñu di. <laughs> ba bi paatee nga ko deux mois. <laughs> teew ma ko deux mois de waye def na fi un mois ba tegal. un mois. gëwuma lool damaa ñamal na fi sax dama ko yërëm na ko demal. tànk nag boo jekkoo del baale nag yow it jël ko caxat-caxatee doomu jàmbur sànni génnee di ko toggaloo ay waay ci góor muy def ay ceeb. te man ko nag te mu gi daa mën a togg mën a togg ba nga xam ne lii bu ceebee. damay jaaxle. <laughs> dafa est-ce que nekkuloon doon togg. est-ce que doon liggéeyam. moom mosut a togg. de dafa mën a togg ba ma jaaxle. mosul togg fii la toggee xanaa mbëggee la ko indil ëpp doole. moo tax muy togg day fobëre ba néeg bi di biriyee te day fobëre bu muy biriyee ma ne ko baaxul. bëgg woon mu dem sax ndax wax dëgg yàlla arrangé woon na ma. mu jógee moom mooy toggal mooy fóot mooy dem ma dama fii laay togg. di commandé mooy def lépp mooy bale mooy raxas mooy togg moo indi petit déj au lit est-ce que muus nga. ba pare ma koy yow loolu ku ko am doo ko téye. di di nga ne nongu sa kaw lal. mu mm. lay defaral say say besoin. kon wéroo yoroo tax yow doo suur. yow daal mbir mi da nga koo bëgg a def ceeb. yal na ma yàlla musal ci suur jabar yal na ma si yow lan mooy sa problème. yal na ma yow yoroo am na lu ma la bëgg a laaj de. am na lu ma la bëgg a laaj de xam nga lan laa bëgg nga xam yow néeg bi man dama lay xañ sama bopp wala lan la yoro lan moo nekk ci beneen jigéen te nekkul ci man ba ngay wër fu ne nga wër di fa takk nga yaakaar ay nekk kaw lal moo tax nit di takka jabar yow de moo tax ndax déggoo li nga wax gémmiñ gi moom moom la yàlla téye waaye yeneen yëpp a ngi dox waaw yeneen yi dox la nag lan la dégg naa la nag mun na togg mun na def cuuraay yooyu kay yow toggaluñ la ah? toggaluñ la et eh, yow da ngaa a jël man dama kaa coppal moom moo yónni mbaay wax mbaay ni ko moom daf maa nob yoro mën naa laa laaj man de yow mën naa laa laaj léegi nit ku jekki-jekki loo si mën yow mën naa laa laaj dara mën naa laa laaj dara waaw da ngay rendre hommage Golbel sama kër yow mooma sax dama koy ko ci suuf bu ma jaxaseeg yàlla kii muuma la de eh. muuma la de na doon jandeer bi na doon laa wala de <laughs> sama nday nee na day dawal sama yaram yow man lii dawalu sama yaram li ngay def feregeewu ma ñeente naa fekk nga fumiste nga lii na tege ci suuf laa la wax jobbe duggul sama kër wujjeewu ma ak jobbe voilà falaa yem ak yow te damay nelaw bu ma déranger waat kal nga ma la jël nga ma sub boo xun ma la xaw ma lan laa duggoon laa doon duggi ci yow yoro yow yoro yow yoro lan la waa dama teg ko yàlla sonal nga ma sonal nga ma sonal nga ma danga sonal waaye bëgg góor rek jar na nga yuuxu nii bëgg góor rek jar na lii. na de bu yëgee loolu ne danga doon togguloo jëkkër ma ko raxasala ko minaasal xolam bi dina gundaanaat de. lan waxuma ne la na fi. néew daal na noonu moo am fi def descente sama kër. di jaay fit ne bande la. waaw di jaay capable xam nga dootu ko defati. Nafi dootul defati ba mu génn da doon daw daa daw dafa daw ba bàyyi fi ay susoom. Nafi mbay mi ma xam. Nafi daw. Nafi ba <laughs> Votre série revient après la page pub. mu def a gën lu mu deful ñi ko xam a gën ñi ko xamul dem fa gën ñàkk fay dem kooku kan la Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan borom càngat gi borom kannaar gi borom ndombaay kaaraange matière raison bu Kaolack kër Sambara Xinjoobeen Serigne Modou borom kannaar gi askan bi tuddee loo ca tëj loo ca tëj moo di kannaaru gàllaaj goo xam ne booleem soxla boo ca def ci wàllum ut ut am am wala sax pexe ba fegu ci sa bopp kaaraange gi looloo ko tax a jóg yéen ñi nga xam ne dañ leen a yoreel boor ngeen di dangi dangi ak a dang dangi di ci yéeg mu jox leen ci kan gànnaar gi den wax ci seen soxla seen aajo faju biir nii goo xam ne itam ku ne war na koy wut ñi ngeen gis ñu am ko ci réew mi ci moom la ñu ko jëlee moo di ñetti jaaro yi benn bi bàyyi la yaay ak doom ñetti jaaro la yoo xam ne mbooleem lu lay ubbee ci sa buntu àdduna mbooleem lu lay aar mu ngi ci ñetti jaaro yi sëriñ Modou Gaynde Kéemaan moo ko fi am ci réew mi leneen dul jëlee feneen fu dul ci moom sëriñ Modou Gaynde Kéemaan moo di ndombaay wëllu mag ndombaay wëllu mag ni turam ku ko takk dana la aar foo mën a toog koo mën di jëflanteeg ba ci sax sa yoon yi tukki ndomba gi dalay musal ci l'accident ñu ko yore ak fu ñu mën a toog jëye ju fa man di wax ci fekk ñu ngi ànd ak ndomba gi yàlla da leen di musal ci barkeeb ndombaak wëllu mag gi lu mënul ñàkk ci dund moo di koom-koom bu nit ñi amee nga am soo wutee am boo toogee itam di gën di am mooy cangatu fataan fataan cangat gi sang bi moo ko fi def ñu ko xam duñu ñu fa gëj ñi ko masalaal rëcc wuñu ko cangat gi fataan fataan la foor na fooraay goo xam ne ku repp koy laal ñaari yoon ci at mi lu ko mooy yow mi ko laal ñaari yoon ci at mi da nga génn mi benn wala daañu la ñamal kaso ñaar loole nag mooy wàññileel foraayu cangat gi te la mu koy defee seeru lii yëpp ma wax nag ay mbir la yoo xam ne liggéey lay laaj balaa koy def ak yow li si xaar ko gis say mbir génne say sarax doog a sóob ak yow ci liggéey bi numéro téléphone 77 972 98 81 Serigne Modou Gaynde Kéemaan ma ca kër Sambaraxi Njóobeen bégte la ñeel réew mi ma rek mu xool ma wàcc station bi Anita dama ñëwoon man la na fi pour waxtaan xool nu ñuy gérer yor ndax àdduna am ma ne ko hey bu àggale mu ne noonoo mën a bëri na yóbbu su bi subi mu daw ma topp ci yóotu yére yi escalier yi eh, eh, dama koo eh. baaj baajee ba mu jaaxle ba ma ko bàyyee daa miir ëpp na daa miir gëwuma loolu na fi mbay na fi mbay mi ngi may wax ma xam ko <laughs> moo ñëw fii di seddal na fi mbay na fi mbay de bu déggatee Anita day daw dama koo dóor ci escalier ba na fi di bërëngu xam naa ne moom sama yoonu kër waxuma sama koñ bi koñ bi koñ bi yëpp na fi may doot fi jaar. mais li ma ko. mu jeex ko def boo ko sot sotee doo ko rey. kooku dama ko en li ma ko bëgg a def ma def ko ko. mais ni ma ko defee karaw ko defee leneen ñu tëj ñu police boo ko defee yow ñu tëj ñu police. waaye sama xol bi sedd na. xam naa ni galaas ndax li nga ma wax nii bu dee noonu la demee. xam naa ne sama xol baa ngi jaay galaas barki alxuraan. <laughs> <laughs> ay man de frigo <laughs> ndax li ma def ndax bi duko netali de wa wi ma duko netali jank he wo wati ma do bëgg xamati jank gisoo fi ma génn ni ci soir la nga génn wa li mu doon ku defati lii njaaku mbay de génn fi mamu bu dee ma ndàkkee mi ci lofé mam maam gorom far bay teeñ ñawal ma bam mu baax ne ma solal mais njaaku mbay mi bandina ni ah. de lay def ma ci defal de ma nga wakam di toj wakam de dama wara changer garde wa degg ma jank sa friser lan la xana may adam su coiffure li lay def waa de jànk yi wutal ma ci nag sa doomu ndey dematuma fen bambiloor la nekk di ko toj ca kaw tali ba cotisel ma ci ñu ñu ma ak baax yéwén yombi périk nag ñu waxtaan réer moo amul ñàkk waxtaan moo am ñàkk waxtaan moo am Nafi nag wax naa ak moom mu jakase yuuxu pélé pélé wax naa ko nag dinaa woo sëñ Modou moom mu mën ci moom dara sëñ di gaynde borom kii man dinaa ko woo mu mën ci moom dara man maa toog mbaay moo dem ana man déw ma de. nga ne kan moo mbaay moo génnoon yaa ngi may dégg bi mu génnee dem xam nga jobbe jobbe xamoo jobbe fu muuma la yàlla dafa téye gémmiñ bi jigéen la mi ngi dëkk fii ci kaw ci boori robine bi man dañuy romb rek mu ne ma tali lalala tali loo ma ne ko sawa mu avancé ma dem lii la ñu sékk man ak jobbe mbaay moo fa dem di ko cëppal mbaay cëppal ko ba pare mu ne ko copp ma si yow sa karit bi laa copp est-ce que comprendre nga wax bi mm-hmm. maanaam man jóguma pour dem pour wut jigéen billaay maa ngi lay man dem dama toog fii moom mu nekk fa mu nekk ndekete kelam mu ngi nekk ci man. kelam mi ngi nekk ci kan. mu ma bi kelam yëpp ndekete si man la ko def. léegi nag. mu yóbbante mbaay ne ko boo demee waxal sa karit bu njool bi jëkkëru nafi bi man dey bu ma sañoon ma dénk ka sama bopp. doy na doy na ngay mbab mbabi ne laalooy mbéb boobu ba léegi yaa ngi wax ma ne teg ngay wiiri wiiri ka xoolal say fen ak feni mbaay dama cee sonn. yow yoro am nga jom yow. yow yoro xam nga naan yow da nga ñàkk jom. waaye yéen nga ci nga ci xaw ma kan nga ne ñuy wax nga ne déeta waaye nga ne da ngaa bëgg a dellu ca xaw ma talalala talalaloo fu mu talalala fu mu talalala ah? ma nga ma xalaat. waxal ndànk. eh xam nga naan la siiwal ba ñëpp dégg la weer benn fan yaa koy gën a siiw. dina ñàkk jom. sa noppi lu kuy leen yërmande eh noppi lu ba pare amu leen yërmande. bu yàlla teg nattu bi ngeen accepté nattu bi ngeen xam ne ci yàlla moo ko teg nattu. xam koo xam ne mënul yow gën sax buñ ko musoroon teg ca buntu waañoo nga waxaale ak moom. yow luy sa problème. waaw golo gu lem geenam wodd nga wax la yow itam seen bu ñu ko. Eh, solalee tubaay seen tiir nga ñu dama lay xëpp suuf de noppil ana noppil ana ñàkkatu jombe nii katu gàcce gi yor sama doom ji di ko bennoo ñaaroo di ko gudd fu ne nga taf tafee jëmee ko fa yi fi yu bon yi mooy lan man mi ñëw fekk yow yoroo bàyyi bëgg jigéen waaw góor man man nekk góor ngay wax bàyyi eh, man ngay waxal si jaamu yàlla mu ñëw mu yàlla téye na gémmiñ bi bu ñëwee sëy fii wala bu sëyee bu ñu tuxoo mu ñëw eh. bu bu lan la lum la mun a wax lu la metti koo xam ni day wax pale la lan nga si dégg yàlla wax Muhammad Rasulullah kenn du ko topp jëm fenn yow sa bëgg jigen gi dang ko défarat ba mu jekk teg ko ne mbaa ma jël la la ca deseeru murtani ba xolal nga dé ngelaw li di def ni lolou nga ma yéene lolou nga ma yéene nga siiñ ngang ñu fi fekk la fa yakarna da nga contane fekk faatu nga wu yoro yow kañ ngay may sama doom di jamm ci adina kenn moko xañ jamm ba yeen yeen yow mi yow yow li sa li sa li sa famille jaaxal ngeen ma man de seen famille. mu seen famille jaaxal ngeen suñu famille amuñu benn sik yow ya am seen famille nit julli benn melokaan amuñu ko yërmande li ngay xool lu bon julli def ko war a am kii yàlla téye na gémmiñam mu kool ma wax def maa oh, coppal man ma ni naa si jaamu yàlla lan la lan moo si nekk toppal mbaay rek lan moo si nekk la mbaay fenkat la yéen ñaan ñëpp a mbaay boo xee mu a génnug bëy génn loolam rinoo génnug bëy sàngutum yar dàquti weñ am ah, nga man dama ñëwoon pour nga wax ay xaj ngeen ay saay saay ngeen wala sëkk nga eh, wax eh. xaj ana eh xoolal dama lay eh, noq eh, léegi laa la wax xoolal xoolal noqal man ak yow ñoo fi nekk laa la eh laa la eh, gën a mën a defee lu bon laa wax xoolal eh xam laa la wax ba eh xoolal eh yamal eh xoolal eh